imraata nuuxin ak imraata luut jigéenub luut ak jigéenub nuux ñoom ñaar dañoo nekkoon si ron gaay yu baax waaye ñoom ñu beew baaxuñu kon bul toxoog naan toog fi nga toog ni sama borom kër baax na te fekk imaam wax na ko léegi imaam Cheikh nee na li fi jigéen ñi def léegi li muy tegtale mooy mbaax ni mu waree góor noonu la mbaax waree jigéen mu def dëgërlulaay si aaya alquran boobu nekk suratul ahsaab aaya boobu yaakaar naa soxna yonent mooy sababu nuzul hadihi al aaya waaw muy maymuna mooy sababu wax li tax jigéen jigéen islaam daf ko jox daf ko jox valeur soxna maymuna dafa wax ni lu tax alquran di tudd góor rek ti tudd jigéen yàlla ñëw di wax ni innal muslimina والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاشعين والقاشعات والمتشدقين والمتشدقات والسائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم يلا فهمتوا تودي ريك تودو جيجين kon lii ngeen def jigéen ñi lii ngeen def lii la yàlla wax ni ngeen def ko yéen jigéen ñi ak kan jigéen ji ñuy wax mooy ñaari jigéen yooñu wax naa leen ak ban jigéen mooy Mariam imam wax na ko léegi Mariam si tënk dañ ko jëloon yóbbu ko sa jàkka ja comme soxna na koy saw ni muy sonnee si jàkka ji ku yàlla dimbali nga mën koo del ñëw di def li muy def Mariama waajuram muy Imran dañu woon yàlla soo ma mayee doom muy jigéen dinaa ko jël yóbbu ko sa jàkka ja muy góor dinaa ko jël yóbbu ko sa jàkka ja mu liggéeyal jàkka ja yàlla may ko doom muy jigéen mu ñëw daani walaysa zakaru kal unsa góor melul ni jigéen de waye wa inni samaytuha Maryam tudde naa ko Maryam waye kum nisiroon naa suma yàlla maye dom yàlla may na ma dom bi na jël sama dom ji bayiko sa jàkka ja mu ñëw ci jàkka ji di topato jàkka ji féete ci jàkka ji sayu yu nijaayam wala bayam bu ndaw Zakaria duggé ci mom wa kullama daqala alayha Zakariyahu almihraabu fa wajada indaha rizqa qala ya maryam anna laki hada saa yu nijaayam duggee si moom laaj ko yaa Maryam foo jëlee lii qaala huwa min indillah inna allah yarzuqu man yashaau bi xayri xisaabin ni ko lii de si yàlla la jógee yàlla mooy wërsëgal ku ko ku mu soob moom yàlla si lul benn xisaab mooy lu dul benn réglé Maryam boobu la alquran di tagg nii naan wa Maryamam nata عمران التي أحسنت فرجها كون نيكاي تومال نان عيسى دومو يالا لا كون القران ودينا ني عيسى دو دومو دو دومو يالا انما صلى عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون عيسى شيخ الاسلام رضي الله تعالى عنه مي باي نياس سي اديام غوسيو غوغو امام دا فا دم مكه تاجا فك بن عرب mun ko dégg naa réew ma nga dëkk muy Sénégal yaa fa mag mu ni ko ak fii yaa fa man yaa fa ëpp xam-xam mu ni ko ak fii ndax as su'aal nisful jawaab parce que dafa bëggoon a tuutal Sénégal mun ko dégg naa Sénégal yaa fa ëpp xam-xam mu ni ko ak fii mun ko kaay ma laaj la mun ko loo may laaj mu ni ko kan si yéen seen soxna yi yonent yi la ñu tuumaal si njaalo kan si yéen si seen soxna yi yonent bi lañ tuumaal si njaaloo mu ni ko ma tontu la si xam-xam wala ma tontu la si xel mun ko déedéet mun ma tontu si xam-xam tontu ma si xel mun ko si xel ñaar dañ leen tuumaal si njaaloo imam si xel de <laughs> cey yàlla moo tax suñu mag ñi li sëriñ Ahmad Tidiane sëriñ suñu sëriñ waxoon bu bu nit ñi di wax jàngal tontu waaye jàngal xuloo wallahi sëriñ Ahmad Cheikh Cheikh Ahmad Tidiane moo tax ak pànkam ak ma neex man dama bëgg nit ku pànk mu ni ma tontu la si xel wala ma tontu la si xam-xam ko tontu ma si xel bul ma tontoo si xam mu ni ko ñaar bu ñu leen tuumaalee kii ñëw indi doom kii ñëw indiwul doom kan moo set Amadou ñaar bu leen tuumaalee kii ñëw indi doom kii ñëw indiwul doom kenn moo set te fekk kooku arab boobu ab chrétien chrétien la woon mun ko ah déedéet déedéet laa laa bul ma tontu bul ma tontoo si xel tontu ma si téere mun ko bu dee bu dee si xam-xam yàlla dee na inna masala isa inda allahi ka masali aadama xalaqahu min turabin summa qaala lahu kun fa yakun kon mariam yàlla setal na ko waaye tamit kazalika almusafaahata almusafaahatu ki ñu tuumaal mooy ummuna aishatu radiallahu anha yàlla moo ko tuumaal yàlla moo ko setal fële sa suratu nuur yàlla moo ko seetal sa suratu nuur fukki aaya ak ñett waaw moo tax bàyyi di wax nit njaaloo ji nit njaaloo pour prouvé ko yombut imam imam Cheikh baal ma de man billaay lii moom du ma la ko jox tey bàyyi ma jox ko alaaji mbay mee alaaji mbay mee pour ñu tuumaal ko njaalo islaam caw ko faaw imam Mamadou Wade gis ko benn heure te woowul imam Cheikh imam Cheikh gis ko man woowu ma gis ko woowu ñu tontoo Adama Ndiaye ñun ñëpp ñu gisandoo ko te kenn woowul sa bopp moroom moroom bokkuñu fu ñu jógee boobaa si la ko islaam doo ko doo ko caw kon njaalo prouvé ko dafa jafe lu jafe la kon fa tabaarakallaahu ah boobu bu yowmal xiyaamee day nekk si soxna yonent bi sallallahu alayhi wa آسيا آسيا سخني فوفلاي واتي سما كارد جوخ امام باج آسيا مو نيكون امراه فرعون اذ قال ربي ابني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين كوكو فرعون مستسي ان موم مو نيكون سخنام نك waaye borom xam-xam yi nee na saa yu nam moon soxla boppam ba nam ma sëy ak moom yàlla day jaaral si diggante li ñu tuddee mbaam xuux musta egg si kaw soxna si si mbaam xuux mi rek la daan yem yàlla yàlla musul ñu si loolu firawna musta egg si soxnaam saa yu xelam nekkee su moom mu bëgg egg si kawam yàlla jaarale si diggante bi mbaam xuux si mbaam xuux mi lay yem lu tax kooku dafa war a nekk soxna yonent bi ëllëg yow mal xiyaam du dëgg kooku Asiya soxna yonent bi bok. lay bokk te Firawna bu saay saay la bu mag Asiya boobu Firawna daf koo jàpp bi mu xamee ni kii mooy bàjjenu Moussa ndax bul fàtte Asiya moo ni jëlal xale bii ndax comme maa yow seeneen ay at amuñu doom jëlal xale bi amaana sax mu nekk suñu doom ñu koy xoolee bant bi ñu amul te booba ni kii magam rakkam moo ko frère am moo na moo yar Moussa si këram waaye Asiya da say joué rôle bu rëy Asiya boobu Firawna bi mu xamee ne moom gëmu ko moom ndax moom nee na moom yàlla la anaa ana rabbukumul aala loolu la Firawna wax man maay borom bi gën a kawe Firawna bi ka bi mu xamee ne Asiya gëmu ko Firawna ni day rey Asiya ni day rey Asiya bi mu ko bëggee rey Asiya ñaan ñaan gii ma wax ni koy rab yow sama borom im lii yàlla nga ma tabaxal indaka si yow baytan kër fil jannati si aljana boroom xam-xam yépp nee nan balaa Asiya faatu yàlla wan na ko kër gi ko yàlla tabaxal sa aljanna yàlla yàlla boole leen si yàlla yàlla boole leen si mbaa yéen ngeen ni jigéen bi ñu njëkk rey si islaam ki njëkk rey si islaam jigéen la yéen jigéen ñi moo tax seen lii du hasard imam Cheikh nee na lii du hasard te lii moo war a am jigéen kenn waru koo ginnaawal ki ñu njëkk a rey si lislaam Sumayya la tudd Sumayyatu Sumayya bintu Yasaar Sumayya boobu Yasaar dañu ko weddil yàlla oh, afan sangam dañu ko weddil yàlla mun ko dama weddi yàlla mun ko weddil yàlla mun ko dama weddi yàlla mun ko dama lay rey jël gëléem yi yow tànk bi dàq mu jëm Dakar jël beneen gëléem yi yow tànk bi dàq mu jëm cees daal di jël xeej jam ko si kanam gi waxuma kanam gii de kanam gi kon fa tabaarakallaahu jigéen yàgg naa def lu mel nii te kii yaayu umma islam bi muy ummuna Khadija keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam damay xaaru Hira yàlla wàcce ko iqra mu ni ma ana bi qaari in ñun ko iqra mu ne ma ana bi qaari in isqarra rakata marratin yaqulu lahu faqra bismi rabbika anta qaatimu nuzumi keroog yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ñëwee góor gi nee na sakanat bil qalbi xaailatan lam yusika allahu fi daarayni la takimi jihad li warqata tahki ma rawahu laha wa qaala namuusu muusa zaki fabtasimi ya laytani kuntu fiha saliman jasan wa kuntu hayyan la dal ixraaj li idami sadaq kon fa tabarakallahu maa ngi tënk sama wax bugguma oustaz bàcc ba am temps damay gàttal rek wax dëgg fa yàlla man ñun liñ gënoon bëgg mooy yéen ngeen tari jërëjëf ndax sayda Soxna mbub bi ñu toogee di waxtaan mu wax ni man ko man li ma gën a ñor naam mu nga سكنت بالخلب قائلة لم يخزك الله في دارين لا ممدن على نبي

fondation Ya Sayda si Tamba Jigéen Jaase fa tabaarakallaahu kontaan nañu wax dëgg fa yàlla ñun ñi nekk ak yéen kontaan nañ seen taxawaay bu baax ñii macha allah fi mu toll su ma doon dox si mbedd ba daje kenn mën naa jël temps ba mu jeex ñoom ñëpp fa tabaarakallaahu yàlla yàlla barkeel yàlla yàlla guddalee seen fan yàlla bàyyi leen fi bàyyi leen fi bu baax a baax a baax a baax Mamadou fa tabaarakallaahu kaay jël kàddu gi waaw incha allah. bisimilah jërë ngeen jëf ñu ngi jéggul bu baax imam cheikh imam mamadou wadd bal la ñu àq bu baax a baax ñu ngi jéggulu asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Oustaz Boubacar Faye